garaaw trop nañ ci ay nit joxe na ay wane teewul benn yoon maître Moussa Diop samp ndëndam ci élection présidentielle yu ñu jëm mu fësal ni président de la république ak ki fi nekkoon jëwriñ gi gàllu ak gànjar gi ak ñeneen yi nga xamante ni nag dañoo am tur ci dëkk bi laale ci wàllum ger ak exploitation minière ki fi nekkoon directeur général bu Dakar Dem Dikk li mu wax fan la ko teg lu ci mënti am ku nekk daal dina ci joxe xalaatam. si ces propos sont avérés. bu fekkee ne li ñuy wax ni dëgg la loolu dina tax ñu dellu si waat ci ñaari mbir ci wàllum gouvernance ci biir secteur bi benn bi moo di ñi nga xam ne ñooy jariñu ci contrat yi beneen bi mooy xëccoo bi nga xam ne moo am ci biir. c'est le conflit d'intérêt. article vingt-cinq cadastre yëglekaay officiel ak site yu ministère bi nga xamante ne moo gàlloo li ni mel daanaka nu leen neex mën nañ koo saytoo bu dee keneen nag dafa wàccook ak lu yoon digle ki ci ñàkk moo di askanu Sénégal. ñun askanu Sénégal waaw ñun lañu waral a éviter de frustrer d'abord parce que alal bi ñoo ko moom. boo fàttalee constitution daf la wax article vingt cinq maanaam les ressources naturelles ci jamono ji nga xamante ne nag Sénégal moo ngi waaj a dalal ñaari gan bi ci njëkk di jongante njiitum réew yu ñu jëm beneen bi nag di exploitation pétrole ak gaz bile affaire nag ñu bari jàpp ni dafa nar a tax njiit yi ñu leen di xoolee yeneen i gët. na procureur autosaisiru jël affaire bi dossier bi leeral ko.